man daal maa ngi koy sant di ko gërëm di wax ne ñun ay taalibe la te tamit euh, ñu lay defal ngay wax sax day xaw a difficile ndax domaine bi ñu nekk domaine bi mais sëñ Abdoulaye Diop dina wax xaalis ne leen jël na oto may ma mayoon oto bi nekk si jàmm mu ñëwati ak si ne moom da ngaa war a amaat oto bii jël seeguma ko mu jëlaat nag ci jamono ji terrain bu seer boo xam na que boo ko doon jaay di ci am lu ne jëlati jox ma jël kii di jox ma nga koy nekk ca mairie ba yëpp mu boole loolu nag ku ko mën a ñaanal nga gën ko ñaanal ndax wax dëgg yàlla sëriñ la boo xam ne li may wax ne li nga yéene sa mën na la yéene lu ko xol yu xol loolu xol boobu foo te doo koy delloo lu la waay defal dama wax du mbir lu ko war la euh, dama koy wax di ko waxaat euh, chaque jour te damay fier di ko wax. soo xam ne bala yàlla di booleeg moom ngeen nekk di def émission yàlla may la xam-xam def mel lu nekk tey xam nga tey nit na xam-xam bu gisul kenn xam-xam man dafay yow nag suñu borom dogal nga ma ñëw ak sama yoonu bopp sa dooley bopp bopp suñu laaj suñu laaj sax léegi waxtaan ma amul problème tey kon ñun fu ñu mën a agré te question ñun ñoo dul ko wax yow sa jaan léew li nga wax ni yow li war a def def nga sa jaan wàcc na ñun nag ñoo des te yow sa cadre moom macha allah te ni ma ko defalee defal ma ko ay si si si. ko ci kanam loolu bëri. lu ma na ñeneen yu ma ko jëriñ te melu na ci ñoo xam ne que tamit bi nga xam ne gore nan yéene nan la àddina li da ci am ñoo xam ne que ñu ngi ci bande touche bi comme ngeen bi ma pol solo sax ci tàlli gi defal ma mais defal askan wi rek dafa doy sëkk nit nag bu mu leer ne mi ngi faj nit ñi ñuy mu di leen jàppale ci seen i jàngoro seen i soxla mun loolu doy na ma alal ndax sama alal nit attanu ko maanaam sama soxla nit nit bindeem attanu ko mais bii mooy bi ëpp ko ba lu ma mën di defal lu ma koy mm. xam na loolu mm. kon man dëgg kooku laay ànd ak ñëpp moom wax dëgg yàlla nit ki nag bu baaxee ku jaar ci man nga xam nit mën na ko ñu ne ko cheikh ñu boole sax xamuñu la mu jàppale la ngir man mm. mu wàññil la ngir man mu taxaw la ngir man kon kooku am ma fay yeneen yi nag dafa doon loo xam ne que mënuñu loo ko defal nga toog ne tekk ba wax day nuru ne da nga soxor